nan fi gis ku amee jël bay dóori ak dimbag nar na jax ta ku yor ab galañ na jël ndan tëgg tel sakol di sanap mbaate sel fi dañ ko fiy tere te nga teewlu balaa leen na rëcc ngay rus di sëgg ruube mbaate di faw daa di ak di jag sàppe leen tani tekk ne day gi nar nañ ko lakk biile um siyatu shaari nar na wu tegi njëkk gont mi dana wecci ci bis lu man ñeenti fukk ay balaa yu ñu arme te yaay suwaa boo ca kaamilu ak soosu muxtadab ndam mi ñug ak tufe mutadaar te wil ginaar la yuñ lakk afra nañ fa ba siit kon defum la soob mën nga sut saairun yu ñu formé ca géewi mbër yewoon njëg tax na lañ fi ba woon tey siwaa fumu da koy tëg waaye ku ñëw nañu koy fetta soog sagal ndax du sëgg waaye ku ñëw nañu koy fetta soog sagal ndax du sëgg tàccu leen ko mu gaaral ne duñ fi way lu ñuy sëgg waa mu assasa afay direction de la poème sàlli way lañu ñal ku xam ñu kan doo dëkk jekki leen te ñu woote waat gaa dikk heure bi kat ndigawul moom te jant bi wa man tabiahum bi ihsaanin ila yawmi diin yi assalaamu aleykum wa rahmatullahi taala wa ñu baaxoo ànd ak yéen jotaayu umsiya shi'ariya bi nga xam ne Kanzul Afiya moo ko baaxoo organisé ci turu muassasatul Afiya comme niñ ko daan toppee at mi ba keroog muy jeex bi benn la ci yooyu dootuñ leeral programme bi ndax yaakaar naa leer na ci bopp ñëpp comme ni ko sëñ bi tijjee loolu lañ koy yeggalee rek bu ko defee comme que xaw nañoo tardé tuuti ci yenn organisation yi chair buñ xas ba woo rek bu xasida gi guddee nga xaw ko wàññi tuuti bu ci bàkku amee nga tënk ko parce que gis ngeen jafe-jafe yi nga xam ne moo ñu xaw a gàllankoor bañ yeex a commencé tuuti di ñaan yàlla ñu tàmbalee ko bismillahi rahmaani rahim jeexee ko ci alhamdulilahi rabbil alamin shaahir bi njëkk dañ koy woo baytam bu njëkk moo doon tawi lay samaw fas woowu lay labbalaat te dem ci géejug sëriñ Muusaa Ka lay roote ay xikam tawi lay sa maw fas woowu lay labbalaat te dem ci géejug sëriñ Muusaa Ka lay roote ay xikam xool naa ba xool seet ba set mais kenn du raw Bamba xool naa ba xool seet ba seet mais kenn du Bamba xool naa ba xool seet ba seet mais kenn raw Bamba xool naa ba seet ba seet mais kenn ko def nii mu mel saagaa yi nañ ko nangul ku gis Masaalik nga xam ne kenn du mam Bamba yàllaa ko def nii mu mel saa yi nañ ko nangu ku gis masaalik nga xam ne kenn du mam bamba keroog përëm yer safar jumaa ji moom dafa fee sag dell ay nit nga xam ne wuy si nañ bamba ki doon wax ak di abdullahi sant buso doon boy bu ndaw ay ci way tey sant cheikh bamba aoudu billahi min asheytan rajim bismillahi rahmani rahim ñe leen yi baax di leen jaar képp koo xam ne si ni yaa ngi teew si jotaay bi te noonu wax way boo xam ne nañ ko defoon ci baxru kaamil di ko def ba ñu dem ci daara ja lañ ko ab doo jugaat ngir saddi way ca demam ca daara ja ngir di jàng fa alquran ba ëllëg mu xam ab doo saddi way ca demam ca daara ngir di jàng fa ba ëllëg mu xam sama dem ca daara ja guddi la sama baay taxaw sama yaay taxaw sama maam taxaw lépp ngir ma xam tey booba bis ak mooma at duma mas di fat te ko man ba bis may wattu Qur'aan jàngi xam bis booba moom mi ngi tombeloo nag aljuma fekkoon ma am at yooyu ko am ko de dang fa dem may muñ di jàng di jàng man ba ñu yegg at moo xam ne daal tiis moo ma dal ba ma mujj xam saa ja daan sonu rekk ci man moo faatu woon teewut ma muñ tey sant buur tey dolli jom guddeeg suba may muñ di muñ tey dolli ñaan ngir yàlla def may cam suwat tuta dal di xam bañ yegg at moo xam ne daal mbégtem kase moom moo ma gaw ma ne boobe at moo dàq lem 2014 laa wattu woon lu ma jàqi woon la giim 2014 laa wattu woon moom alquran tey mooma at lu ma jàqi woon bis boobu la giim at mooma saa yaay lum amoon ci alal defal nama ngir ma bég ba ma mujj jooy jooy jooy yu yéem bis booba laa xam luy njari ñal tey boo ko wat too yow dangay làqi ngërëm sant ak ngërëm lay dellu wax tey dellu ñaan bur yàlla may mag mucc def mama doon ko am te di ñaanalaat cheikh muntaqa xalifab xadim bur yàlla sàmm mu ko may ko wér guddal fanam duma fàtte mukk ku di ñaanalaat cheikh sayxuna duma fàtte mukk ku di ñaanalaat cheikh sayxuna bur yàlla gudd dal aw fanam yokkuk wéram di garam mu bi nga xam ne moo tax man ma am fitu toog di way ci biléb jotaay ciy maa ko xam abdul ahad ustaaduna moom moom lay safoo di garam mu bi nga xam ne moo tax man ma am fitu toog di way ci bileb jotaay ci maa ko xam abdul ahad ustaazuna moom lay safoo dafa jekk way wala foog arab ci maa ko yéem sant ngërëm lay dellu wax naa sant naa bur yàlla ak yónneen ba ak ñadi ay ñoñam sant ngërëm lay dellu wax naa sant naa bur yàlla ak yónneen ba ak ñadi ay ñoñam asalaamaaleykum wa rahmatullah mu ne xarin xarit ni ñi kenn mën la tax ñuy gërëm te kenn mën la te ñuy goree dee ko jëw loolu benn bay la bu suñ mbay jaxate waxoon ñu leen ko doon baax tey xasida gi ñu defoon ci xam-xam lañ ko jëmee woon xam-xam comme que ci lañ nekk di ci yëngatu ñu defoon ci ay bayit bismillah bismillahi rahmani rahim alhamdulillahi lay santaat borom bi ma sos tey ñaan diggan ngir murit saadiq bu ñuy terali alhamdulillahi lay santaat borom bi ma sos tey ñaan diggan ngir murit saadiq bu ñuy terali al ilmu lay xamle ci ab yaat yu may wolofal ngir day lu baax jëmm ji buur yàlla moo bégali buural te jug jàng xam-xam xam ne mooy lalawaat ku jàng am tagg woowu fay til xamali war-war yi mooy xam lu diineeg lépp loolu dana tax nga am njariñ fii ci duniyaa am lu lay terari taggal ña jug soobu xam-xam jox ko jot gañu am ku jàng am tagg wow fay tilbasaa xamani ndaw liy jógal bàyyi tàyyeel ak ngelaw ak nar paseefu am pas-pas ak xol bii nga koy jagali tàyyeel ak yuqi dalay sooyloo talay surufal ku jàng am tagg wow fay tilbasaa xamani tayyee la ko yuqi dalay sooyloo talay surufal ay jikko yu ŋàññi lañ bul jëm ca ñoom dawali ab sang ne lépp loo weesoo sa maas ga ba ngay def loola ñoo ngay nelaw kon way gu mat amali defal sa jot muy sa tayyeel def sa noppalu muy sag def say tawat muy wér ga ngay wutali loo am ci xaalis jël ko jëndee téere di yër pasar pasar bul ko def bul yàq bul lëjale bul joow ci biir jàng ak soo dalay yoxamal dénkal sa nopp ak sa xel wax jee ñu fay boyale moytul ma mumbaay dalay tardel te doo masa dem tàmmal bu baax wéete kay tum lay dimbale moytul ma xew-xew yi dalay yolomal day jël sa temps far nga sooy toogaay na lay gënali ab jàngkat jekki tey liirantu rekk te te jàpp ak ñaamu te jàpp ak ñaamu rak bu muslu bu musale ab jàngkat jekki tey liirantu rekk te war te jàpp ak ñaamu rak bu muslu bu musale bul yem ci dars yi del gëstoo ko lu ñutu ay nawaajir ak yooyu dalay yokk ak dalay xamal yi xam-xam du jël dars rek ak gëstu am na ca wal ustaas dalay teg ci yoon yaay def loo koy matale xam-xam du jël dars rek ak bind am na ca wal binday waral mustawa xëy yokku lañ tere soo jàng xam-xam dangay doyloo sa xel mi nga am te bàyyi appareil yi yombal dalay dogali bul wax li may jàng moo ngi tey ci kóol bi ma yor day tax ba doo jàng loo jëfloo sa xol moyen sa xel mi jëfloo ko ci afkaar yu metti tatar mooy jeqi pëndu sa xam-xam mooy la lay weeli sa xel jëfloo ko ci afkaar yu metti tatar mooy jeqi pënduf sa xam-xam mooy la lay weeli ndax luy nelaw soo ko yeewul ay xaran du jajug yeexal sa xel mi mu jóg nam maat ko tey yaxali wa rubba si mawhibin naa man mawaahibuhu law uqisal musbaqan bil fikri lay bëri leen sàmmal ñu suñu abdulaat buur yàlla na may ko bëggam ci ndaw ñi may ndaw ñi it ak farlo buñ tappale sàmmal ñu suñu abdulaat buur yàlla may ko bëggam ci ndaw ñi may ndaw ñi it ak farlo buñ tappale bu ma sëkk bay sëriñ sama tur mi moom fu fa dikk gaa yi xallita naan doomi mbër mi moom bul ko tokk man sanse bari cas boole ko xel mu ñaw ta dikk taxaw di ma sóoru ma daan ko jox ko fiw rek ñaw xalim bari moo taxit fu ma sàddee bay ñu waaru tey sëgg kuy wuute mën a taalif ba mel ne man waxul dëgg may njàmbe ci wolof way di man loolu bul ko sikk booy bu ndaw bu ma yëngal soril dama gaaw ci mbëkk wekki bañ dama cee gaaw te jaasi laa yoro way su ma teewul dafay lewen mbaamu texam mel ne dëj su ma teewee mu xumbulii bul kafak caaya laa duma seddal te boy yu ndaw yee di mbabal am jàmbu jërëjëf am filin kub bi maa njëkk am jàmbu jërëjëf am filin kub bi maa ji njëkk facilaatun facilaatun ramalay dalli wi may sol facilaatun facilaatun ramalay dalli wi may sol yàlla buur bee ki ñu wàcceel alxuraan muy suñu tegtal yàlla buur bee yónni jibril ci muhammad ma ñu jiital jibril ñaw dee ko ca noppam ne ko yaa ahmadu jàngal mustafa tontu ko naa maa ana bil qaari i déggal mu wayaat dellu ko naa yaa xayru xalqi lahi jàngal Moustapha dellu ko na mënumaa jàng de jàppal ba mu ñettee la ko xoj naan ko iqra bismi tuddal allasi qad xalaqal insaana min mu mokkal ku di ndaw tey bëgg a jàng jàng mooy soppi la ponkal Moustapha mii gis nga li mu daj tew koo muñ tadi sellal ma ne kon yow mi di jàng nanga muñ lépp lu lay dal fu ñu nee jàngi ji jot na nanga dem jàngi te bul xol na nga toog jàngat a kay xool di ko teeyal di ko leeral naa xam ci ne quraan yàlla buur beenu ko tànnal fi de lay yam te di santaat yàlla buur bii maye xeewal fa salaatun wa salaamun yàlla buur yàlla na ko dolli afdalun naasi wa ali fekk sëriñ bamba ñu màggal afdalun naasi wa ali fekk sëriñ bamba ñu màggal wa salaam xanaa da ngeen sooraalewul woon ne ay njool dana nu ñëw ba tax ngeen teg fi lii may yoqamte koo dem bismillaahi rahmaani rahiim asalaamualeykum galas mooy nuyoo na ngeen fayta ndànkal ko kon muy mbégam asalaamun aleykum galas mooy nuyoo na ngeen fayta ndànkal ko kon muy mbégam samay soppe ñoo tax ba may fenti way samay noon taxaw naan kii kat du dem mu nuñu maa kar de bismillaahi laa di doore sant buur bi def ma góore jekk xel di woy lu oore ku ma déglu tey nga xam ko faaxilaatu maa ngi dooru fo bi xer yi rëy di jooru siggi bu kenn muuru ku fi yëngu tey ma gaañ ko mën a fallu doomi daara letti sii di rakki jaara ku ma songu lal nga naara ku ko weddi nga lal ko doomu soose buuru mandeng fu mu dikke gaañ a sëkku ñe di wesar ñee di ñukku buuru buur yi tey nga xam ko buru buur yi fàllu mii la mbëru mbër yi fàllu mii la nuyu naa ko teewta naa la jàmm buur bi yàlla am ko lammi mbër de lañ fi woote ku ko man de bul ko wuute sama xiir gi moo ngi yoote ku fi yëngu tey ma caw ko bismillah masot xalim gi daal di ab bijim xel te jéem a fàtti leeti ñi ma bokkal masot xalim gi daal di ab bijim xel te jéem a fàtti leeti ñi ma bokkal murit ndigal bu dee ne bañ na ñam na topp yoon wi sëñ bi xàll bañ fital ndigal la jib na bàyyi koo ci sëñ bi Cheikh Muntaxa Mbàkke mi toog ci jal bi sëriñ bi ne murit bu dëkk Tuubaa na jaar ci yoon wi bañ di nekk koo baa na col gi jot te yiw te bañ di gàtt te bum ni dàng saw yaram ne wàtt te daaw nag fant dangal ko bam dang ku daa ko def na tel ko bàyyi bañ lang tuxaki ñollu football itam lun aaya la la tëgg sabar ba tëgg bangoo deli la tuxaki ñollu football it la tëgg sabar ba la lépp lu xeetoo carte mbaa jaayum tux mbaam ñollu mbaa yu mel ne yii dalaa wax jaay ko ci biir dëkk bii la sëñ bii aayee jafeel ndigal li te bañ ko booleeg waaye misik walla feccu li xeetoog lamb na ngeen ko bay dëkk bee ko jomb jokk kawar xeesal ba mel ne baabu jeex na ci dëkk bii ka def koo luubu jokk kawar xeesal ba mel ne baabu jeex na ci dëkk bii ka def koo luubu jaay ko ci biir dëkk bi tam luñ bañ la xeesal jaay ko ci biir dëkk bi tam luñ bañ la sëñ bee ko aaye nañ ko xam ni gën la gisaane mbaa njabar di toñ ak saay-saay te rey sëriñ bi la waxaat ko say gaay gisaane mbaa njabar di toñ ak say saay te rey sëriñ bi la waxaat ko say gaay ubbi fa yit daara war ab lekkool saa ndigal lu sëñ bi di bañ foofa la yiisaa wax wala jëf ci yoon wi wax walla jëf ci yoon wi lut ndigal des na ko aaye kon moyul tebul xul wax wala jëf ci yoon wi lut ndigal des na ko aaye kon moyul tebul xul lii nag la sëñ bi lii nag la sëñ bi wax na ngeen ko moytu te am na ñu ngi ko jox ba ñoo koy saytu képp ku dof ba def ci benn am mbugal ku def ndigal li nag ñi dal di koy bégal képp ku dof ba def benn am mbugal ku def ndigal li nag ñi dal di koy bégal seen mbokk seen mbokk seen xarit seexi fallu ja seen mbokk seen xarit seexi fadilu ja moo moo moo doon fi fàtti leeti kon na ngeen ko jar Cheikh Muntaxa ko teg ñu dal di koy tas mu yaatu man ma woy ko def ko saw sas li fekk ñëw Touba di jumaa ji ne yàlla ne yàlla guddal fan wéral suñ waa ji li fekk ñëw Touba di gis jumaa ji ne yàlla guddal fan wéral waa ji wasalaamu man yurtada nasman wa nasra wa ismi murtada kanzul bu soobe أنا من يرتدى نظما ونصرا واسمي مرتدى كنز بسوبه أنا الولد الذي لا يؤت شعر يداهي شعره لو من أديبي إذا قبض القراطس بالأيادي وأقلاما بأسبوع عجيب له تصفيق جمهور غصير وتصديعات سبان الشعوب أنا الصحبان في قول فصيح أنا المتنبي في قول نجيب أنا البوصير في مدح الرسول وخمسة في بكائي والنحيب أنا موساك في مدح الخديم وقيسا في مغازلة الحبيب فمن منكم يشابهني الثناء ويسلي الناس بالشعر العزوب فشرب الماء في بحر عميق لأسهل من مدارعة البسوب فشعري سالم من كل عيب كما سلم المقفى من عيوب فشعري سالم من كل عيب كما سلم المقفى من عيوب أهدي إليكم عما تحية وأشربها وأطيبها وهي السلام عليكم ورحمة الله وبعد فإن هذه القصيدة التي بين أيدينا لها قصة قصيرة وسأخصها لكم قبل أن أقوم بإلقائها والقصة تتألف من رجل جاء إلي ليسبني وما السبب؟ السبب هو أنه سمع من بعض الناس يقولون إن المرتضى يحب امرأة ما ولما سمع رجل هذا الكلام أقبل إلي وأخذ يؤنبني ويسبني ويوبخني بكل ما فيها من معنى وكلمة ولما أتى إلي لم أتكلم معه لأنه لم يسألني من هي المرأة التي أحبها لم يسألني من هي المرأة لذلك أجبته بقصيدة أقول له فيها أيا من تصب قلوبا تحب فقلبي محب وصعب الملام أيا من تصب قلوبا تحب فقلبي محب وصعب الملام فإن لم توافق على عيش عاسق فقف لا تعائق حياة الكرام فلا تسخرن ولا تهزأن بمن قال جن جنون الغرام فحبي تقي فحبي تقي وعشقي نقي شعوري قوي كيوم الصيام إذا قلت تبا لمن صار حبا فما قلت ندبا ولكن حرام fa tabban wa suxqan liman saara xaqan yara alxubba xumqan wa jahla al anaam ana ana laa umaali fatan laa yubaali shucuuri wa xaali li nayli lmaraam fama alxubbu illa shucuurun tajalla biqalbin taxalla bixilyi lhumaam wa ma allahu rabbi yuxarrimu xubbi walakin rabbi muxillu lgaraam ayaa man azalta wa lumta wa ibta faqul in wajadta dalilan wa aam fa inni ataytu bi aayan qara'tu faqul ana tubtu li rabbi salaam wa ismu nasuuxu bihi sa yabuuxu fuaadi ljamuuxu ilayhi waham fa haa hiya ummi فها هي أمي فدع عنك لومي وصبي وزمي وقل ما يرام بأمي شغلت وقلبي قطعت لها قد وهبت بدون اغترام فما قلت أف ومعناه تف فأف وتف تعيب الكلام سأكسب قوتا وأصطاد حوتا وأبني بيوتا وأسني العزام لأن المراد نقودا وزادا لها كي تقاد لبيت الحرام جزى الله أجرا لأمي وخيرا ولن تلقى شرا كذا في الخيام سقى الله عشقا لمن كان حقا يرى الحب حمقا وفعلا حرام سقى الله عشقا لمن كان حقا يرى الحب حمقا وفعلا حرام والسلام عليكم bismillahi irrahmani irrahim yaa fityatan hammuhumu munaasabaatun tursamu fa saxalu waxtahumu biha wa faaraqul ulaa yaa fityatan hammuhumu munaasabaatun tursamu fa saxalu waxtahumu biha wa faaraqul ulaa alaysa fiikum xaaqilu aw min ijaahu faadilu walaysa li suu maailu xala siraati ixtadalaa kayfa tarattumu duruus buxyata jaahin wa fuluus alaa tusakkuuna nufuus kay tahtadi wa tajmalaa fa kullu man tamassaka bi rabbihi wa taraka dunyaahu fa huwa mulika jannaatu rabbin qad ala bismillahi rahmaani rahim ab sët bu dee bayam maam war nay teel bayta wattu sab tool war na góor ab sët bu dee bayal maam war nay teel bayta wattu sab tool war na góor loolu maam li woon démb moom lay laaj ku ñàkk ba kenn du ruur ñu naan waaw góor bay dunde njëndi ay taax sanc muy tool daañ ñàkk daañ jàng ak kër këril buur lan daa defuk toor daan sax ak nekkal buur buur gërëm leen daañ cëroo ay cëri cër ba fees ak ay tuur fees dell ci xam-xamam nuur daan dindi réer daan xet bi daan samp ay kaang fees dell ci xam-xamam nuur daan dindi réer daan xet bi daan samp ay kaang kaanga naa fóor tërbiya ak defar ruu tërbiya ak defar ruu sanga ay doom du nenal baa bay mu ruur mu booma koy ruur ban dundee ba dund ngay jeex ndono laay laaj kuy dond ba saw ses réer moto joxu ñaar dond yi woon démb kaar kan mooy di sàmm ak euh, ndono yi woon sàmm ak siggil ñoom di sàmm ak siggil ñoom ñu jeex ci seen waar xam naa ba yéen ko doon tijjee rek <coughs> pour ndax gars yi dañ xawoon a bett ci way moo tax moo tax béfu mun ay bayit ma doon barkee loolu loolu rek incha allah fas naa yéene buddu tànk bay ci toolu Bàmba bu wér xuus ca leeree ngeeru ñeeru ngëm sax ci sant suñ Tuubaa naa yéene buddu tànk bay ca leeree ñeeru ngëm ci sant suñ Tuubaa ku di murit na ma teewlu ma ñëw dox ci Bàmba bu wér tagg ak sant ak jébbal sa lépp suñ Tuubaa yàlla buur bi ba mu bindee ruu yépp daal di taaj na alastu bi rabbikum xayrul xalqi moo tontu di sangu Sëñ Tuubaa yàlla bàkk jël tànn jiital ko teg ca kaw delluwaat yoonu ñaareel na alastu bi rabbikum kana balaa di Sëñ yàlla buur bi wax yóneen def naa la sangu mbindéef kontaan na ñi lay gund ñu lay gunge ci duñu ñab Sëñ Tuubaa yóneen bi ba mu tànnee saxaabaam ya segg leen ñii bu ñuy wàlliw di tànnee fi sëñ Tuubaa ñu wax Bàmba na ko tànnal ruux yépp bambu riir mu tànn fa yeneen tànnee cey muriitu sëñ Tuubaa Cheikh Bàmba ñam tànnoon ñooy saxaaba yeneen bi wér xarfam ba xarfin ku xam Bàmba jawal Tuubaa te xeloo jël léppam jox boppam borom Tuubaa def yitteem ak soxlaam sax ci liggéeyal sëñ Tuubaa Cheikh ñoo ko toppoon ñooy mbër yi cëri woon ay xaalim ak i xutbi di tànneefi Sëñ Tuubaa alaa layta xad kuntu muridan wa saalixaa aw xutban wa waaliyan wa xadiman borom Tuubaa walakinni wala alun li madixin wa xidmatin huwa alfardu wa malaasun tahayyaru ila Tuubaa murid yépp na dëggal jox seen bàmba Sëñ Tuubaa murid yépp na dëggal jox seen bopp Sëñ Tuubaa jaar ca yoon wam rëddoon jub ak jublu tuuba fas naa yéen a gudd tànk bay ci toolu bàmb wér xuus ca leeree ñeeru ngëm nga sax ci sant Sëriñ Tuubaa bi neex na it te làq ay njariñ sa bi neex na it te yéen doon nelaw jaajëf demal ñu woo keneen mu daagu ñëw sa bi neex na it te yéen doon nelaw jaajëf demal ñu woo keneen mu daagu ñëw